Jawa Seru TV dan Bapak Jelas. asalaamaaleykum maa leen di nuyu mbolo mi len sant di len gërëm ci sen téway. di sant Fat ki nek groupement bi ñi mu andal yépp di sant bu baax wa Pastef ndax won nañu jot ci liggéey bu melni ba liggéey gis suñu bop. am nañ bu baaxa baaxa baaxa baaxa. ndax yéex nañ see jot lool di leen sant bu baax di leen gërëm te ñu fas ci suñu jom nag ba bu ñu bu ñu bu gàcceel ñoo xamante ñoo ñu ko andil ndax lii dafa metti da ngay dem jàng sa métier ba pare ñëw partagé wu ñun kon war nañ ci am fulla ak fayda ñu bañ a des ginnaaw ndax ñun ak suñuy moroom ñoo ko bokk am ñu fexe ba bu ñu des ginnaaw maa leen di sant bu baax a baax a baax yéen waa Pastef. leen ma nag maa leen di nuyu seen tur ak seen sant. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp baal leen ak baal naa leen yal nañu yàlla boole baal man maay maire Daba man maay meeru xale yi maa doon ànd ak Alioune Sarr guddi ak bëccëg amul fu ma demul ci Alioune Sarr léegi nag man léegi mag la te de sama yaram mi neexatuñu waaye sama xel yaa ngi kii mooy sama goro soxna jonn léegi nag affaire bi yëpp delloo naa ko ci moom léegi na seet ko ñoo xam ne nag dina mën a ànd ak ñoom nga xam ne ba ëllëgee bu joge ñoom ñëpp ñu jóg ànd ak moom ñu dem liggéey liggéey moo wóor toogaay baaxul nañu dem liggéey ñun dañu doon liggéey nañu dem liggéey toogaay amul benn njariñ li nga xam ne sama mbokk bii nag sama mbokk leemu la sama mbokk la yaayam sama mbokk la mu indi ko fi yéen ngeen ñëw indi ko ak yéen ñëpp ngeen indi ko Abdou Mbacke mi nga xam ne sama doom la di sama sama ki euh, moroomu sama Aliou Faye sama sama doom jooju mooy moroomam la ñoom ñoo doon ànd mu gis lu baax indi ko si biir dëkk bii Astou Ngom indi ko yéen ngeen indi ko sama mbokk bi indi ko fi jàpp leen ngeen liggéey liggéey leen liggéey leen ngeen jaay seen bagage mu jar ak jàmm ngeen defaraat. di len sante lol ci jetaay bi jetaay bi rafetna di gërëm itam ñi nga xamne ñoo déplacer dekk ba dekk ñew ba fi pour ñun muy kii mi ki ne ak ñi mu àndal ñoo koy gërëm diko sante ndax li kat mënon na ko ci ñaka fekk bo nit kenn du ko ci wax dara ndax xamna ñun ci ñun la mujjee liggéey daanaka liggéey na fu ne ba mu dess ñun. mu ngi soog a ñëw ci ñun di liggéey nit ki nag boo boo ko taxee jóg mu indi la loo xamante ne lii dafa am njariñ ci yow dangaa war a xam ne lii mu la indi njariñ la waaye nag wax ji toogaay bi neex wax ji neex defar na ñëw na toog ñu defar mu jekk mu dem ngeen yooye fal seeni loxo dara doo leen dem fen liggéey boo ci gis ndax ne ngeen yeen Pastef mooy xàcceendoo dóorandoo engagement looy liggéey waaye tey bu kee nga ne nii kee tardé nga ne nee nga leb bañ a fay buñ lay jaayee ngeen du ma jël dama am nangam loolu doxalul dara ci addu ci benn groupement nag même sa kër gi sax tey bu kii bale woon kii balewul taxul ëtt bi set danga ko mën a yéen ñëpp ngeen àndandoo bale ko mu set ëtt bi rafet ku ñëw ni ah kër ga da daa set wicc waaye tey suma ma layoon fee te yow bale woon mook ser la yéen bon nag lii nañ ci góorgóorlu def ci jom def ci taxawaay boo xamante ne bu takku la ñu xamné ñi déplacer ñew ci ñun amna ñu benen soxla budul ñun ba dañu dañ bay seen soxla yépp ñew pour ñun nañ ci góorgóorlu bu baax yow nak soxna njit dafa metti nee la ku bu ki xaj baw la jamono bi yépp xam ngeen ko ben indi leen suusa bo tayé ma nga yomba mer mbala nga yomba gis sa bop do dem fenn fenn nga dul dem ya dafa mede ba mu jité lu nek daan nako deg waye day def ni ci muy bàyyi astu di bàyyi mbakke mais politicien fu mu mas a woote fii ba mbufuj ay oto ñooy di ko daal te mën nañ koo xeeb de waaye nit ku ne Pastef ak sa jikko lañ lay toppee dégg sa jikko lañ lay toppee soo jubee rek koo jiite mu jub bul mer bul sentu bul déglu bul gis yow daal gëmmal taxaw sa liggéey boole kook sa jom ak sa fula loo xamee ne duma ko waxee nit mu mere ma bu dee dëgg wax ko bu la meree bu ëllëgee mooy ñëw bàyyi waxal dëgg bi waxal waaye bul ne rek du ma wax ndax diw mere ma waaye du ma wax ndax diw daf maa xeebal du ma wax ndax ëpp ma ko dooleeg nangam loolu nekkul ci groupement soxna bu nekkoon liir tey sax ñun ñëpp dañ ko war a topp bañ man mii di wax mën nañ ko war a topp ndax mooy ji lu mu santaan dañ ko war a def lu mu wax dañ ko war a topp bu ne lañ leen liggéey nañ leen liggéey bu ne nañ leen toog nañ leen toog liggéey moo liggéey moo Abdou mii nag lii mu dox tey jii doonul tey kese xaj na dañuy soog a gis délégation waaye Abdou fu ne yëngu na ko ñun man de dem naa di ko wuyu ay réunion yu dul benn yoon Abdou lu mu mës indi biir mbus naa woo na ma ceccax sa Abdou indi na ko biir mbus woo ma jox ma ñaari dam waaw moom mu ngi nii waaw mu ngi nii moom Abdou Sène waaw mooy mooy seen Sène asalaamaaleykum mbooloo mi fi daje ah muy góor di jigéen di mag di ndaw ah ñuy dalal ñi nga xam ne ay gan lañu fi te am li mu leen li leen jàngal si keroog fii dama leen ne bàyyi leen po mi bàyyi leen pecc mi te da jël seen bopp def ko ci lii kii di def. ñu leen gërëmee nag sant leen a ah, lii nag yàgg na fi ndax ñun ay politiciens lañu. mbooloo mii yàgg nañ ko fii def a ah, yéen ñi nga xam ne yéen a bàyyi koo ba baak ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm toujours ma dañuy naan commune waa Babac lu ñëw ci commune bi waa Babac ñoo koy aakimu déedéet dañ caa nangoo son waa babaak dañ cee nangoo sonn yal na leen yàlla jëmale kanam ah Abdou mii sunu jërbaat la sunu jërbaat la ci lu wér atana sonn fii lool nit nag booy defal say mbokk doo tayel doo sonn xaaral pelu peyub yàlla ëllëg te kat yàlla dana ko fay de ala kulaaleen ah mu jël astumi di sama doom mu bot ko def ko rakam di and ak mom guddii ak bëccëg fu astu tollu mok mom kon fofu it ñu ngi ciy sante ab astu bu baaxa baaxa baaxa baax di sante jeeg jii fi ne jeeg fi ne ñu am fula ñu am jom lanu ñu am fula ñu am jom lanu te kat gis nga ni ñu groupé ni buñu démé ba yalla dogal li li ag ñu dem ba ngeen soxla leen fofu la seen xol di sedd te xamna ni lu yag yag dana am lu yag yag dana am manit buma bu ma fi yalla bayé bu boba dina gem dugg seen biir ndax ba légui dematuma waaye seen biir kër jëf alaykum suñu mbokk diggante yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyu yi gën a sell di leen baalu xàq ci tardement bi du nuyu soxna jonn mi nga xam ne mooy président Pastef bu diggante ñu ngi koy nuyu di ko wàcceel wàccuwaayam euh, di kontaan aussi ci ñëw bi ñu ñëw fii ci formation bi nga xam ne moom lañu wàccee ci groupement Pastef bu diggante ñu ngi ciy am kontante bu baax ndax mu mënoon nañoo wàccee xam-xam bi fii ngeen doyadil ko mais da ngeen ci ànd ak Pastef ak engagement ak respect bu mat sëkk kon ñu ngi leen ciy jaajëfal euh, di beral ziar aussi suñu kilifa de monsieur le maire Alioune Sarr nga xam ne mooy maire commune bi ñuy sakku ci ñepp pour ñu ñaanal ko bu du fan lool bu and ak wër ba lepp lu mu yenn ci Sénégal yalla def ci lu kawe njortam ndax lepp moma comme ni koy waxé di nuyu aussi président Abdou sen koku mom dama koy beral ziar ndax euh, doomu jobaas la té day dafa bok ci doom yo xamné dañuy ndëriñ jobaas ndax lepp lo xamné day développer jigéen Abdou sen ci lay dox wàccee na ko ci jigéen ñi wàccee na ko ci jeune fii yi wàccee na ko ci yeneen kii groupement yi instant yi vision yëpp mooy li développé jigéenu jabaas yi pour kenn ku ne bañ a yi toog xay toog daal Abdou Sène nee na dootul am bi ci biir jabaas jaral na ko lu ne nag ku ne mu ngi fay fugg buntu ci kilifa yi nga xam ne moo ñu gën a kawe ndax lii lépp moom la mënoon na yem ministère rek di liggéey ne sama salaire rek moom a ñor mais deful loolu fu mu fëgg buntu rek di dajan ak kilifa mu ngi koy wàccee biir Jobaas pour Jobaas jëm kanam rawatina jigéen ñi ndax jigéen ñi ku leen jàppale rek njortu naa ne jàppale nga as Sénégal yépp ndax jigéen ñi ñoo yore ñoo yore koom-koomu Sénégal te jigéen amul doole mais am na xel am na kàddu am na pas-pas pas-pas bi mooy lan jàngal may ko jën jàngal ko nu muy nappee te Abdou sen dafa ñew pour jangal jigenu Jobaas nu ñuy nappé pour kenn ku ne ëlëk di nga mun di nappal sa bop di ñew tek moy formation yi nga xamné formation savonnerie yi nga xamné waccé nako fi ci diggante pour waa diggante jigéenu gis ci sen bop moy formation savonnerie madar javel, sabu gancha sabu ordinaire yoy lañ fi def dimanche bi passé tay ji lañ ko doon sol ñuy jaajeufal jigéenu wa di beral ziar aussi faté nañu borom kër gi ndax nañ fi wax dëgg ma sha allah taxaw nañu gatandu nañu téru nañu amuñu luñ fi metti muy kilifa bi ak papa aïssatu mi nga xam moñu fi indi di jigen ju man góor aussi aïssatu aussi une fo ngeen ngeen foo ngeen tàccul ko parce que dafa xaré ba li ñew aïssatu mi ku bax la ku bëggu jobaas la ku bëggu développement dekkam la formation bi dama joge mbusnaax rek mu da ngay ñew fi kon lolu yene sa wad dëkk moko waral kon il faut ngeen tàccul ay setu ngeen ñaanal ko waaw may gëreem ñep di ziaré ñep di ziaré may bëreel nuyo préfet commandant may nuyu commandant ndekki ak wa jobaas yep kilifa jobaas yep suma limé damay joom waye ñom ñep contane na si ñom ma leen di woon nak pour manam vision bi Abdou sen am ñu jàppale ko ci ñaanal ko yàlla ndax lu yëkkati jobaas rek la bëgg monsieur le maire aussi kàddo yi yow yaa ko moom bii moom yow laa koy baral muy président Alioune Sarr kii Abdou Sène dama bu nga gëstu ko bu baax parce que si développement lay dox ci lu sigil jigéen ñi ci biir jobaas lay dox jàppale jigéenu jobaas yi ci loolu lay dox kon no munti def xëcc ko nga tek ko ci sa kanam parce que xëcc Abdou sen moy xëcc ndariñu jobass xëcc Abdou sen moy xëcc jappalé jigenu jobass loolu dal monsieur le maire mang la koy sante di len nuyu di len gërem di len balu haqu bu baax di len bal haq assalamu alaykum rahmatullah maa ngi len di gërem bu baax a baax baax te di len ñaanal yalla fan bu baax ak wër gu yaram ndax li ngay def day ah yalla ko suñu borom barkeelal té sa yu sa yu ñi ngeen di jangal bu ñu mukkalee bu ñu liggéey bi am fa yàlla yow mi nga xam fi indi ak ña nga àndal am ngeen ci tiyaaba bi kon yàlla leen jëlaat suñu tubaab sax yi gën a jàppale ba yàlla yàlla suñu borom nangu ñaan te ñu bokk bi ñu digmal yàlla na bokk ci loo xam ne nawet bu barkeel lay doon te mu diglu nag.